maa ngi nuyu visiteurs yu Thiès 24 yi te wax ni man maa ngi tudd Abdou Ndéné Sall juddoo Tivaouane di ingénieur polytechnicien xam Thiès bu baax parce que polytechnique de Thiès laa génne depuis 86 promotion Cheikh Anta Diop mooy la neuvième promotion ñu tuddee woon leen la promotion des abeilles parce que nu on pique et jusqu'à présent l'avenir a montré que c'est une promotion dynamique Transrail bi Javert demee dañoo ñëw fekk Javert bàyyiwu fa dara dara dara dara dafa bàyyiwul dafa profité sax ci trois mois de préavis yi ñu ko béyoon mu raxas raxas société bi raxas ko lépp en complicité avec d'autres personnes quand même parce que vraiment ña fa nekkoon mënoon nañoo bañ yenn yi quoi mais dafa ñëw raxas yëpp bi ñu ñëwee benn locomotive la ñu fekk état yi ñu ni ah ñii suñuy doom lañu ñu ngi doon liggéey chemin de fer jël nañ ko duñ ko duñ ko duñ ko teg di wut partenaire di wut kii léegi état yi ku nekk day góorgóorlu ku nekk dina teg. 3 milliards 750 millions muy 7 milliards 500 millions 7 milliards cent millions yi nag fonds yooyu 3 milliards yi pour ay salaire la entretien locomotive yi 2 milliards 500 la c'est-à-dire 2 milliards 500 lu ñu jël jënd pièces yi ñu soxla yëpp pour 8 8 locomotives yi nekk foofu taxaw yëpp ñu réparé ko loolu nag ñu ngi ñaan ouvrier yi ñu dimbali ñu ci parce que xaalis bi commencé na dugg ñu ngi commencé jënd pièces léegi nii directeur bi pa jox nañ ko bu nga xam ne ay pièces da koy jënde pour mu jënd pièces yooyu mu réparer au moins quatre locomotives yoo xam ne ñoo gën a yomb réparer yi des ñu xaalis bi yëpp ñëwee ñu koy ñu ñu ñu teg ak yeneen de milliards yi nga xam ne dañ koy def pour point critique yi xam nga dafa am chemin de fer point yoo xam ne dafa critique yu nga xam ne dafay waaja dagg donc yooyu dañ koy réparer ba nga xam ni dina assurer une ñuy assurer une continuité parce que chemin de fer xam nga c'est pour transporter d'un lieu à un boo am ay points critiques bu amul continuité xam nga kii bi du egg donc pour ñu réparer ko léegi 7 milliards 500 yooyu ñu commencé nañ ci joxe Sénégal à peu na ci 1 milliard Mali joxe ci à peu près je crois 500 millions mais ñoom ñëpp fi mu nekk nii bind nañu lettre pour relancer leen pour relancer les états pour que xaalis bi mu mën a teew pour que euh, Dakar ko ferroviaire bi nga xam nañ ni teg nañ ko fii bu xam ne teg nañ ko fii pour ñu bañ a consommer xaalis boobu yëpp ñu consommer ko en xam nga sept sept sept milliards cinq cent yëpp boo xoolee salaire yi à peu près cinq cent cinq cent bu ñu fekkee ñu indiwuñu xaalis bi yëpp donc ñu réparer machine yi euh, réparer raay yi commencé daw la am marché on risque de consommer en en mois. en 14 mois 14 fois 500 000 ça fait 7 millions 500 en 14 mois ñu consommer salaire yëpp toog nag loolu c'est un grand danger moo tax comme 3 millions lañ ñu lañ la ñuy jox pour en en salaire loolu 6 mois balaa balaa 3 millions yooyu jeex ñun war nañu am capacité boo xam ne mën nañoo dawal train yi dawal train yi yokku yokk suñu offre bu ko defee ñu am ay recettes yi nga xam dootu ñu dépendre ci état actuellement état moo ñuy dimbali. parce que société bi doxul bi ñëwee fekkuñu fa benn traction parce que ay euh, boo ne autorail autorail bi moo tax oto bi ci kaw raay bi moom mooy tax nga am ay recette demande bi mi ngi fi chaque jour am na ñuy fëgg ñu ne am na ñu am na ñu bëgg transporter mais chemin de fer attanu ko boo demee EMAS entrepôt malien Sénégal dafa fees del parce que loolu yëpp Mali la war a dem amul lu ko yóbbu amul oto bu ko yóbbu am na benn clinker bi fi toog boo gisee actuellement Mali dañu am problème production de ciment parce que clinker bi fii la war a jógee y a deux bateaux de clinker qui sont là mais amul amul lu ko yóbbu chemin de fer moo ko doon yóbbu te chemin de fer fonctionné wul noonu parce que benn voyage la ñuy def par semaine xam nga benn voyage par semaine mënut a yóbbu lool te chemin de fer bu ñu réparé kii bu ñu réparé locomotive yi ma mën na def trois voyages par jour bu defee bu mënee def trois voyages bu defee trois voyages que voyage par jour rek dañ leen mën a defal euh, presque parce que voyage bu nekk trente millions lañ ci am léegi un voyage par jour bu ko defee trente million bu ko defee bu dee bu dee bu dee kii bi mu am quatre-vingt-dix millions le mois ah mu am neuf cent millions le mois neuf cent mois léegi boo ko multiplier par trois muy ñaata trois fa neuf vingt-sept deux cent soixante-dix millions le mois deux ah donc vraiment bu ñu réparer affaire dinañu nekk dinañu indépendant bu ñu joxee lii nga xam ni que laaj nañ ko état yi te état yi engagé wu ñu engagé wu nañu pour joxe chaque état mu joxe trois milliards sept cent trois milliards sept cent cinquante millions trois milliards yi ñu def ko salaire daal di koy teg fële nga xam ni même bu ñu fonctionné wul dañu am seen parce que il faut il faut leur assurer seen salaire xel daal. ñu mën a ñu mën a ñu mën a louer deux milliards cinq ñu mën a louer euh, après deux milliards ñu def ci réhabilitation de de politique bii affaire boobu. c'est d'amorcer un processus de redressement de lutte ferroviaire ah au moins de ce plan d'urgence lii ma wax nii c'est un plan d'urgence sur le matériel sur les infrastructures yoo xam dina permettre fiabilité fiabilité opérationnelle du transport pour un équilibre financier de l'exploitation parce que y a que l'équilibre financier exploitation moo leen di moo leen di assurer un peu moo leen di moo leen di protéger quoi Parce que euh, s'ils ont l'autonomie l'équilibre financier, c'est fini. C'est fini. Ku ko mën ñëw sax di jënd et tout ça day fekk ñu am autonomie financière loolu moo tax léegi lii nag lu tax temps yi ñu amoon ay problème retard de salaire parce que après de am na sax ñu ni ñu tiit ni entreprise day tëj. non mënul tëj entreprise mënul tëj parce que xam nga ni ñun suñu suñu suñu suñu suñu suñu économie. Mali daf ci daf daf ci bokk parce que suñu export xam nga boo defee boo defee économie xam nga dafa am daal la l'équation de l'économie hmm? production plus importation égale consommation plus investissement plus exportation ah léegi suñu exportation nga xam ni dafay li ñuy exporté lu bari Mali lay dem il faut que mu dem Mali dañuy produit 3 millions de tonnes yi nga gis la moitié jógewul extérieur production locale la boo xam fii lañ koy produire il faut mu dem Mali parce que ñoom produire na suñu may suñu marché mais li ñuy produire marché bi dafa ëpp marché bi marché consommation fii ñu ko fa ëpp léegi il faut yóbbu ko Mali foofu moo tax ñu am foofu kii bu baax moo tax président la république moom mu jël option daal ni que da koy réparer parce loo xam ne xam nga xam nga loo xam ne da ko fekk ñu daaneel ko jaayoon ko xam nga ni ñu jaay woon chemin de fer jël ko jaay ko presque à zéro franc waa ji ñëw def lu ko neex di récupérer def yëpp depuis depuis plus de depuis 2003 ba léegi ba 2014 ñu bàyyil ko ko 2003 12 ans ñu bàyyil ko ko moom chaque année dafa déclarer perte ba pare bëgg toog ci affaire bi dafa yàq affaire bi ba nga xam ni ban sax il faut me remercier gars yi travailleurs yi ils sont braves parce que man bu ma waxoon ni man dama si foon gaañ bu demee affaire taxaw. parce que sérieusement dara amu fa woon si se débrouille même à faire fonctionner le chemin de fer à avoir au moins un voyage par jour ay sax ay jàmbaar lañ ay jàmbaar lañ moo tax lii nga prés li nga xam ne président yi engagé wuñ ci moo tax ñun dañuy xar suñu tànk tubéy pour ñu teg ko ci seen loxo bu ko defee ñu am une autonomie bu ko defee ñu amorcer processus de redressement outil ferroviaire bi pour am seen autonomie ah seen autonomie seen fiabilité opérationnelle du transport am seen équilibre de l'exploitation bu ko defee seen salaire ñu koy fayee seen bopp léegi ñoom lii rek mooy problème bu ñu amee xaalis bi buñ ko mobiliser ba teg ko ci. mobilisation bi kañ na ko mën la Sénégal ci 3 milliards 3 milliards 750 mobiliser na déjà 1 milliard. tu as vu Mali je ne suis pas sûr je crois que ils ont mobilisé xam nga li gënoon a neex ñu mobiliser ko entièrement loolu la ñuy wax gisa problème yi bu amee nii rek ñàkk mobilisation entière bu ñu ko mobiliser woon entièrement gars yi réparer locomotive yooyu taxaw defaraat raay bi di assurer salaire yi nga xam ni yow yaa ngi liggéey sa salaire teg nañ ko de côté hmm? donc xam nga ak ak demande bi am yow tu offre le transport di nga am recette recette yooyu mooy lay permettre nga def am l'équilibre caabi xam nga loolu yomb na mais xam nga pour génnee xaalis ci état yi dafa métti dafa métti dafa jafe ko quoi mais tooguñu man mi tooguma kenn toogu la vraiment ah, saafaru na saafaru na saafaru na parce que li ko gënoon indi sax mooy que xam nga Dakar ba ma ko ferroviaire moom tijjeegul woon compte caafi pour jox ko xaalis daf doon métti parce que amagul woon compte amagul statut bi génnagul woon kii bi génn pièce yi génnagul woon donc pour jox ko pour jox ko pour joxoon ko xaalis bi dafay métti parce que dañu daan jaar ANCF jaar fii des moyens détournés et puis xam nga lii c' est de l' argent public l' argent public loo ci mënti def rek dafa war a leer parce que c' est quelque chose qui va te rattraper tu ku ñëwoon xëy na actuellement dañ nekk ci benn contexte bi nga xam ne mën nañu ko génnee tak tak tak tak mais loo koy génne rek da nga koy génne ci lu leer parce que comme dañ ko war a génne état yi dañu signé pour génne ko jox ko Dakar Bamako Ferroviaire warul jaar fenn dafa war a jóge ci état bi rek trésor dem Dakar Bamako Ferroviaire loolu moo doon procédures yi les procédures yi moo doon jafe-jafe mais heureusement euh, maa ngi félicité en passage de directeur général mooy Sambou hmm, Jean Gabriel Sambou tijji na Joseph Gabriel Sambou tijji na léegi euh, tijji na léegi kii compte yi ba nga xam ne léegi ministre des finance chaque mois daf koy approvisionner viré ko. mu fay mu fay normalement. monsieur le ministre ñu ñu terminer ci projet TER nga xam ne hmm. président de la comme ni ko waxee moo euh, euh, xamul chemin de fer ki ko wax xëy na liggéey na chemin de fer de xam nga ko liggéey chemin de fer ak nekk ak xam chemin de fer c'est différent xam nga man mi liggéey naa chemin de fer j'ai fait un an de fer. après ma dem defi man ji le plus gros le plus projet de chemin de fer Afrique mooy interconnexion des chemins de fer d' man liggéey naa ci pourtant ñoom dañ naan man du ma cheminot maa leen ne gën a nekk cheminot je suis inspecteur des chemins de fer dama fa jaar noonu un def naa def naa seen école bu nekk foofu doon inspecteur des chemins de fer donc vraiment chemin chemin de fer xam nga chemin de fer c' est projet c' est projet d' infrastructure c' un projet d' infrastructure de transport transport lu muy jëriñ. pour jëlee ay nit fii yóbbu leen fële donc nit ñi pour ñu jóge fii yóbbu leen fële il faut ñu am lu leen motiver pour ñu jóge fii yóbbu leen fële boo defee ab aéroport pour dem fa il faut mu am jëlee nit ñi fu ñu dëkk aéroport ba kenn dëkku fa jëlee nit ñi fi ñu dëkk dem ci aéroport ba ah donc c'est pas c'est pas chemin de fer en tant que tel c'est un, un moyen de mobilité qui permet qui qui moyen de mobilité la moyen bu dem ak dikk mu nga xam dina permettre nit ñi jóge fii ñu nekk dem ci aéroport ba loolu rek la donc loolu ab dëkk ab aéroport ak foo xam nit ñi di ñooñu am nañ fa besoin pour dem loolu mooy motiver projet transport est-ce que bu amul woon aéroport nit daawul def foofu est-ce que kon dinañ fa def transport wala ñu def fa tali bu fay dem donc boo waxee ni que euh, projet kenn du ko tëgg ci aéroport loolu mooy xam ne ko yow sa jàngu soriwul wala xamoo dara wala tu n'es pas intelligent c'est simplement ça parce que quand même euh, projet ça sert à régler des problèmes il un problème de mobilité fiable entre Dakar la capitale et l' bu bees bi ñuy def donc il faut nga def fa benn liaison ferroviaire na ma wax benn aéroport rek bu nekk ci monde bi ngi nga gis nga France boo wàccee boo wàccee France da ngay dugg ci RR RR dem wàcce ci gare de Lyon fépp nag foo dem moo wàccee aéroport de euh, Mogadiscio fële Éthiopie kii ngay dëgg foo wàcc kii ngay dëgg donc vraiment booy wax loolu mooy que xamuloo tu n'es pas intelligent et puis vraiment tu ne lis même pas xam nga loolu soxlawul sax nga nekk dans le chemin de fer mais bu nga xamee ni nit bu nga xam ni dafa soxla mobilité déplacé fii dem fii dafa am fu mu soxla il faut que en masse parce que bu fekkoon woon ñaari nit ñetti nit ñooy dem aéroport kon soxlawul ñu def train mais ñi fay dem moo tax ñu def train ñi fay dem un aéroport bi nga xam ne nee nañu ko dafa potentialité bi 3 millions de personnes ah 3 millions de personnes par at il faut nga defar benn train ak ak ak ak autoroute à péage bi bi nga xam nit ñi dinañ mën a jóge fii directement parce que quand même yenn saa yi booy voyagé da ngay teg sa oto parce que sinon da nga yóbbu sa oto aéroport jël foo kii dem wala yóbbaale sa chauffeur mu indiwaat ko yëpp gaspillage la mën ngaa jël sa jël sa jël sa bagage dugg ci train bi dem aéroport voyager boo ñëwaatee duggaat ci train bi ñëw vil vraiment donc donc bu ñu waxee ni que kuy wax ni que euh, projet bi baaxul rek xamuloo parce que on a fait ce qu'on appelle de faisabilité étude de faisabilité projet boo ko defee moo lay moo lay wax ni que est-ce le projet est faisable déjà techniquement est-ce que le projet est faisable de manière institutionnelle est que le projet est faisable est que lii mën nga ko def amul ci benn contrainte dans l'étude de faisabilité ngay analyser contrainte yëpp indi ci ay xayma solution yooyu yëpp indi nañ ci ay xayma solution muy projet bu dëgër bi nga xam ne lancé nañ ko mu war a def 14 gares nit ñi dañu war a kontaan parce que depuis colonisateur bi depuis 1900 1914 ñu fi ne ñu fi ñu fi mos a nekk yëpp colonisateur bi la fi defoon ba léegi ci raay bi moo fi nekk kenn mosu cee def dara président Macky Sall bi mu ñëwee nag mu ni damay def dara ci chemin de fer bi te chemin de fer def dara ci chemin de fer ma doon président Macky Sall damay continuer def lu bari ci chemin de parce que un de chemin un. un kilomètre de d'autoroute mooy quatre kilomètres de chemin de fer te chemin de fer moo gën a économique moo gën a viable moo gën a sûr moo moo moo gën a écologique et politiquement même c'est plus rentable c'est plus rentable président Macky Sall bi juste bu defaree euh, TER bi régler problème banlieue defar Dakar ba mu. defar defar defar defar defar defal defar Dakar ba mu ko ferroviaire. ku moytuwul sax population di ñëw di élection du am on le maintient dañ koy maintenir par force man man xam naa ko parce que man def naa train bi dem naa gis nga li may gis ni man duma def dara ci hasard dem naa réseau bi dem naa ba Kidira réseau bi yëpp foo ma wax man ñi nekk ci réseau bi foofu sax sans man maa leen gën a xam réseau bi xam naa fu bon fu baax fu am problème fu nar a am problème fu yëpp xam naa ko et tout ça vraiment loolu la ñuy ñaan ñëpp accompagner ci parce que xam naa ni président Macky bu deferee bu defaree bu deferee raay bi population fi ñu dem yëpp nee nañu président Macky bu deferee raay bi même Thiès ñu ni si le président Macky Sall fait revivre le rail le rail defaraat raay bi defaraat ñaari gaar yi defaraat bu mu fonctionné Idrissa Seck sax dootu fa yëkkati loxo ndax bu yëkkati loxo dinañ ko wàccee dañ koy dàgg loolu lañ ko wax donc vraiment man raay bi faut ñu defar ko bu ñu ko deferee soxla wu ñu def campagne. bu ñu ko defaree dañuy dimbali politiciens yi nekk Thiès yëpp ñoom ñoom ñoom ñoom Sall ñoom Augustin ñoom Dia ñoom ñëpp dañuy dimbali parce que ñoom ñëpp moo tax loolu leen euh, ñëw leen sama wet ñu pousse chemin de fer bi dox parce que train bii ñu def express régional 14 gares train rapide 115000 personnes nga jëlee leen toujours banlieue di leen indi mobilité urbaine au niveau de la banlieue kooku ouverture yi muy tijjil gars yi rek dafa bari. nga def 14 gares jóge Dakar dem Colobane dem dem dem Anne. dem boo boo boo maraîcher boo maraîcher nga taxaw fa parce que bu boo doon dem boo maraîcher fii jël taxi 2000 ngay fay wala 3000 te léegi ak ak train bi cent 350 ngay fay egg foofu nekk naa une position plus confortable beaucoup plus sûre ñu tegal la say bagages tegal la say yëpp nga ji jël passerelle dugg ci dugg ci boo maraîcher boo jógee boo maraîcher dem Pikine Thiaroye ah Pikine Thiaroye Kër Massar ah euh, Yëmbal Kër Massar Mbao ah Rufisque Bargny ah jam Diamniadio bul fàtte ni dañuy defar foofu ñaari université yu trente mille trente mille trente trente mille étudiants loolu yooyu yëpp il faut une mobilité pour les il faut le train pour assurer leur mobilité gis nga affaire bagages yi ñu ne yi ñuy def Diamniadio yëpp bu amul mobilité train mais day métti day métti mais dëkk yi li dëkk yi li dëkk li dëkk développé yi am mais ñun dañ ko war a am président Macky Sall son ambition c'est relever c'est relever le pays de faire des projets mbal xuuj mbal non c'est relever le pays en mettant des projets novateurs ah des projets qui sont qui sont qui sont vraiment des projets révolutionnaires parce que c'est une révolution nekkatul kii di projet euh, train diesel train électrique TGV 160 kilomètres à l'heure train rapide aménagé avec des titres omnibus nga xam ni dak banlieue qui 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, des départs chaque 15 minutes. Mais vraiment, ça, c'est à saluer. Si nous faisons 14 gares, nous faisons la ligne là, Dakar Bamako, on fera 40 gares. On va refaire, refaire vivre la nga xam Nous avons le train, on va faire un on va faire revivre, on, va, on réhabilite les gares, on réhabilite tout. On fait on fait revivre les, les si on fait revivre le rail le président Macky Sall n'aurait même pas besoin de d'aller faire campagne pour gagner élection yi kooku moom def ci enquête journaliste nga demal def ci enquête parce que moo xam man dama ko xam dem naa enquête naa gars yi nee nañu président Macky Sall bu deferee Thiès daal waxuma la beneen di Thiès rek bu deferee France yëkkati ko bu mu jóg mu mu dox et tout ça Idrissa Seck ñu ko permettre sax muy wax bu fa yëkkatee loxo dañ ko wàcceel wàcceel que lii colonisateur colonisateur bi moo ko fi bàyyi woon pour la première fois nit def ko te ku nekk occupé na fi ay position nag mënoon ko def defu ko waaw donc président Macky Sall moo koy def di koy gërëm di ko san wax ni que mi ngi ci yoon bi mi ngi ci yoon bi on est en train de travailler Dakar Bamako ferroviaire bi nga xam ni transition rek lañ nekk ñoom xam nga ñu laaj ñoom ñu maintenir activité ferroviaire bi pour xam nga xam nga la nature a horreur du vide bu ñu maintenir plus sur la route wala ñu détourné wu ci ci yeneen port yi clients yi xam nga yeneen port yi ay ay port de Conakry ak port d'Abidjan moom moo tax ñu bëgg ñu maintenir activité ferroviaire ba nga xam ni que bu ñu réparer parce que président Macky Sall dafa réparation tappale vraie réparation la bëgg def avec des norme vraiment relevées moom la bëgg def charge à l'essieu de 22 tonnes 500 hmm? vitesse commerciale de 80 à cent kilomètres par heure ko defee en douze heures de temps mën nga egg Mali ah on reprend le transport voyageur on a une ambition de faire six millions de tonnes six millions de tonnes par par par par par par par an deux millions de voyageurs nga xam ne vraiment suñu digganteeg ay doomu ndey lañu dinañ ko améliorer deux millions de voyageurs ñu def ko at Mali bu ko defee nit ñi nit ñi voyage par train moo leen gën neex sa voyager avion xoolaale nature bi xoolaale Sénégal de profondeurs et tout donc vraiment muy projet bu baax xam ne bu ñu ko defee. vraiment on n'aura pas besoin d'aller sonal nit ñi ci affaire campagne campagne tam yàq xaalis et tout ça on fait le chemin de fer les gens vont voter massivement ñu eggale tous nos programmes parce que président Macky Sall li mu tëgg li mu tëgg nii li mu tëgg nii di ko mettre en œuvre ñu ko mayee temps mu mettre ko en œuvre rek vraiment c'est cela le Sénégal sera un pays bon à vivre nga xam ni que nos atouts xam nga nos atouts mooy mu ñu dañoo am Sénégal atout mooy stabilité on a une stabilité économique politique on a cette stabilité politique parce que plusieurs alternances sans problème on a des potentialités agricoles minières et, et, et euh, on a des touristiques agricoles et minières nous avons le cadre de vie projet bi c'est pour améliorer le cadre de vie nous avons la position géographique donc loolu mooy suñu atu léegi nag xam nga ci xeex bu nekk da ngay renforcer atu en renforçant say atu ngay raw ñeneen ñi le président Macky Sall par le train par la mise en place du chemin du chemin de fer le maillage est en train de renforcer notre notre notre notre cadre de vie notre il va créer des potentialités pour les gens banlieue bi actuellement du ñëw Dakar rapidement dix minutes ñu ñëw tous les quinze tous les quinze minutes am na train mu améliorer xam nga kii moo fi nekk euh, petit train bi tak tak tak tak mais actuellement le président Macky wax ni système ferroviaire bi gën a moderne parce que nous avons acheté le dernier cri loolu la loolu la président bu bëgg population loolu lay def je prends le meilleur la meilleure solution mooy jox ko sama population loolu la président Macky Sall def merci léegi